413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax rafetlu suñu ànd ak yéen ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci biir jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës bokk na ci génn ak Ousmane Sonko na manifestation ba amoon ca cité kër góor gi ni ki altine te mu jur coow lu bare bari Ousmane Sonko dal dinay génn tey ci àllarba ji ngir dem nemmeeku ji ñi nga xam ne ñoo amoon ay gaañu gaañu ca boobule manifestation ca hôpital CTO ñu dippee ko léegi hôpital Idrissa Pouye ba dekkee ca ko yaatal ci biir xibaar yi ñu wax ci mbiru maître El Hadj Diouf mi nga xam ne eh, jóg na pour défendre ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr mi waral coow li ginnaaw bu mu jàppee ne jamono ji ñëpp dañoo sëkkatal Adji Sarr daal di jël toor ba bu teg ko ci kawam yooyu l'information mi ngi ko joxe ci émission bi mu doon amal ca Walfu TV bu ne émission blanche dinañu yaatal eh, ci biir xibaar yi waxi maître El Hadj Diouf jooju daal di wax ji keneen koo xam ne daal dinañu koy accuser viol mu di doomu Sénégal di Boba ginnaaw bu ñu tegee ci moom ay tuuma yoo xam Sénégal ci atum 2016 ci concert bi nga xam ne doon nañ ko fi amal ñu wax ci soxna Waalo mi nga xam ne mooy wayjuri bu jigéen du ci Serigne Saliou Thioune di doom ci Cheikh Béthio Thioune dal di nañuy wax ne génn na àdduna ni ki tey ci suba ginnaaw bu ko feebar bu yàgg tërale woon jeexale ko ak li gën a fës mu di bilan coronavirus bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne ministère de la santé de l'action sociale fësal na ko tey ci àllarba ji mbokk yi xarit ñuy taxirlu a fës natalu bàkk bi jàll ñu faram-fàccee. l'information à sa juste valeur, c'est ici même, mbokk yi xarit yi asalaamaaleykum ñu nuy waat leen ci gën gi nuyoo ñu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu lañ koy faram-fàccee doole doore ko ak li nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu gisee ne ba coow li amee ba léegi dafa dal di tëju ci biir këram tey ci àllarba ji dal dinay génn dem ne meeku ji ñi nga xam ne ñoom ñoo tax moom moo tax ñu dal di am ci ay gaañu gaañu nekk ci jafe-jafe yu méttee métti dal di koy doore ca hôpital Idrissa Pouye ba nekkee ca Grand Yoff ngir dem ne meeku ji ña nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji nekkee ca urgence mu di ñi nga xam ne ñoo jëlee woon ay gaañu gaañu ca manifestation boobu bam ca noppee daal dina amal ab convoi ngir wër biir Ndakaar waaye tam nemmanti ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di ay soppeem bëgg ko loor ngir wax leen ne moom Ousmane Sonko moom mu ngi ci jàmm te itam gën leen a rassuré ci tuuma yi nga xam ne moom la ñu gàll ci am ndoddam ñu wax ci li nga xam ne moom moo di mbirum Adji Sarr ginnaaw tuuma yi ñu gàll ci ndoddam moom itam ne li muy wax ci Ousmane Sonko dara amu ci ba ñu ci bari dal di koy wan ginnaaw ki nga xam ne moom moo maître El Hadj Diouf di ab avocat bu mag ci biir réew mii la mu gis mu di dem fare ji ci langu Adji Sarr ginnaaw bu mu gisee ne partisan yëpp dañoo dem ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko Adji Sarr dafa wét ci combat bi nga xam ne ci la nekk te itam gis na moom maître El Hadj Diouf moomu fi ne ni euh, dañuy sot soto ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ba waral mu fa yéene dem défendre ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr mi waral li lee coow mi nga xam le lu ni mel ci émission bi nga xam ne moom la doon def ca Walf TV di émission blanche nee na bu noppee ca boobu émission euh, dina jël li nga xam ne moom moo di ay engagement ngir défendre Adji ba fu mu yem neex ñu àddu wax ci leneen mu di manifestation bi nga xam ne moo amoon ca Bignona ni ki démb ñu tal fa ay kër yàqate ay oto tal fa ay pneu lacrymogène yee jolli ba ñu jot fa yàq ay station Total ca Bignona ba waral ñu daal di fay teg loxo ay ndaw yu bare bari ba amoon na ci ñoo xam ne sax ci takk der yi jot nañ cee jëlee ay gaañu gaañu ña nga xam ne ñoom la ñu teg loxo seeni wéy jur ñoo dem ca préfecture sàkku ñu bàyyi seen xale yooyu ndaxte jamono ji naa daal dinay tàng lool te itam jamono ji bu ñu ci teelul jóg dina jur yeneen ni jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekkee ca Bignona li ñuy sàkk moo di ñu bàyyi seen doom yooyu ci ni mu gën a gaawee waaye laa yooxu dina jib fu ñu ko foogewul ñu dellu siwaat ci biir ndakaaru wax ci coowal manifestation bi amoon ca buntu kër Ousmane Sonko ni kii altine bi ñu weesu te ñu bari jotoon cee jëli ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant APR yi ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci ay jafe-jafe am ay gaañu gaañu jamono ji dañu leen di maltraité ca ñañu tëj ci kaso gi maanaam ñi nekk garde gaañu gaañu nanguwuñu leen a xool am na ci ñoo xam ne ba tey mënoot yi dindiwuñu ko ci moom ñi ci jëlee ay gaañu gaañu nanguwuñu leen a defal seen ay soins ba waral ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant APR yi militant Pastef yi daal dinañu koy ñaawlu bu baax a baax li ko waral moo di ak nu mu mën di demee bu ñu leen tegee loxo ba ñu ngi garde à vue li wax ci ñoom nañu ko def ngir seen ak yelleef ñu wax ci leneen procureur de la république dal dinay fas yéene addu jëmale ci dossier bu Ousmane Sonko mu di Serigne Bassirou Gueye ginnaaw bu mu confié étudier dossier bi ki nga xam ne moom moo di juge du huitième cabinet ngir ñëw jéem a xool càmbar ay mbiru Ousmane Sonko ginnaaw li nga xam ne moom moo di immunité parlementaire am daal dinañu koy lever ni ki talaata bi passé ëllëg ci alxames ji la ñu ko war a dajalee ca fa nga xam ne moom moo di assemblée nationale ngir wax ci lu jëm ci mbirum immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ba tax na ki nga xam ne moom moo di Serigne siru Gueye daal na ci raxasu ba mu set ba jébbal dossier ba ke di juge du huitième cabinet ñu wax ci leneen mu di li nga xam ne moom la ñëpp di waxtaanee jamono ji ginnaaw bu ñu jiiñee viol viol ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko beneen doomu Sénégal. Sénégal daal di nañu koy jiiñaat viole mu di rappeur bu ñëpp xam ci àdduna wërngel këpp di Booba euh, doon origine sénégalaise waaye itam ki nga xam ne moom moo di papam moo nekk ab sénégalais euh, li ñu koy jiiñ mu di wàllum agression sexuelle ci atum 2016 bi mu ñëwee ci Sénégal concert bi nga xam ne moom la fi doon amal ci la violé woon benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent ki xamle lu ni mel di journaliste bi di Yirim Sarr moo ko bind ba suñu natango yi di Jeune Afrique point com ñoom ñoo daal di reporté lu ni ñu wax ci li nga xam ne moom moo di réeruk Serigne Mourtala Mamourou Mbacké di xale bu am ñetti at boo xam ne ñaari at a ngi nii ñu koy wër teguñu ko gët ci le 21 février 2019 la réeroon ay mbokkam ba léegi. ba waraloon ñu daal di fësal ay photoom ay nataalam daal di ñu fësaloon ay nataalam ci réseaux sociaux yi ngir nag gis seen doom jooju ni mu gën a gaawee mu bokk ci famille Mbàkke Mbàkke coow loolu jotoon nañu ci convoqué ki nga xam ne ab marabu la homme politique di Modou Mbàkke Bara li nekk ab responsable politique pour Alliance de la République daal di nañu koy convoqué woon ca dikk waaye coow la mujjul fenn jotoon nañu ci auditionné itam juróomi charlatan ak benn voyante waaye ba léegi fa ñu tegoon seenu bloc loxo ba tey ñu ko ci lu ñel réeru ko ki nga xam ne moom moo di eh, Mourtala Mamour Mbacke moomu ba tey ay mbokkam ñàkkuñu lii di espoir ngir wër seen doom jooju ndax dañoo jàpp ne ba léegi mi ngi dund ñu wax ci leneen leneen loo xam ne coow la ci biir réew mi mu di génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di soxna Waalo Mbuup di yaay ci ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Thioune doon eh, soxna Serigne Béthio Thioune sa woon daal dinay génn àdduna ni ki tey ci suba li ko waral mu di dafa tëddoon feebar bu yàgg ñu hospitalisé woon ko ci benn hôpital bu nekk ci biir Ndakaaru fas yéene nañu ko denc tey ca sëgi Baqiya ca Touba ñu koy jàll waa cantakoon yëpp di ko jàll Serigne Saliou Thioune mi nga xam ne way juróom moo fi génnee di ko jàll Sénégal ñu wax dem ca Kolda lakk gu métti métti moo fa am ba benn xale bu am ñetti at dal di ciy ñàkk bakkanam loolu nag bi ngi am eh, ci commune bu Ndorna nekkee ci département bu Médina Yoro Fula ginnaaw lakk googu nag ak na mu méttee xale bu ci ñàkk bakkanam bagage yu bari dal di fay yàqu ay néeg yu baree bari dal di fay tàkk ba léegi xamaguñu lan moo taal googule lakk waaye ba tey ñu ngi ciy gëstu ngir xam lan moo waral lakk gu métti boobu ba benn xale eh, dal di ci ñàkk bakkanam ñu wax ci détention ak usage de drogue ba waral ñu dal di teg loxo rakk ci ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye di wuyoo ci turu eh, ki nga xam ne moom moo di ah, aline badara Ndiaye ak benn xaritam boo xam ne teg nañu leen loxo ci wàllum drogue defeere nañu leen ni ki démb eh, ginnaaw bu ñu fekkee ci ñoom li nga xam ne moom moo di drogue eh, jàppale benn xaritam bu tudd abi fay ak ki nga xam ne moom moo di aline Badara Ndiaye jamono ji ñu ngi ci loxo yi takk der yi lañu leen di toppee mu di détention de drogue jamono ji fa yéene nañu leen a àtte fileek fan yi ñu dëgmal ngir xam ñoom ñooñu ak leen di toppee mujjee dañu koy dal di jeexale ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey ci àllarba ji yemook fukki fan ci weeru février ci test yu ñu jot a def ñetti mer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn ñoo dellu si am doomu jàngoro bi fukki nit ak ñaar ñàkk nañu seenu bakkan dooleeku ci lim ba ñàkkoon seen bakkan ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom weer nañ ba ñibbi seeni i kër juróom benn fukki nit ak benn ñi ngi réanimation tax ñiy sàmmonteeg wérgu yaramu doomu aadama yi di ci lëkkoog ministère de la santé de l' action sociale di sàkku ci wi ñuy gën di wëyal digle yi bàyyi tere yi bokk na ci takk masque laal gel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi ngir ñu mën a xeex mbas mi mu génn ci réew mi yéen ñi nga xam ne nañu doon taaxirlu ci suñu gal 24 fii la ñuy yëkkatee bile jotaayu xibaar di ñaan ngeen di di leen ñaanal kenn daloo jàmm te leen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 gën te bu ñu nee góor